gërëm leen bu baax a baax ci ànd bi ngeen ànd ak ñun saa su waxtu wi jotee aseer gu jot ah ñuy àndandoo ak yéen ci seen émission géewal géewal muy seen émission di sunu émission ñu ci ànd ak ay ñoo xamante ne nii kenn dootu leen présenté ci réew bu Sénégal tey ji nag ma fas yéene ci ànd ak imaam Khalifa Babacar Ndiaye saa wolof Moustapha mbay ak Louis Mango ñooñu tey ji ñoom lay seqal waxtaan wi ñu ko baaxoon nag daan seq ak seen jigéen di bu waaye tey jii nag ma wuutu ko fi eh, donc di ko nuyu bu baax a di nuyu mboolem ñi ñuy suivre ah, à travers réseaux sociaux yi ngeen commenter partager boole ceeg itam di def seen ay critiques suggestions contribution ou bien même vous posez vos questions ah dinaa ko jël nag euh, ki ngeen ko war a jox rek ma jox ko ko incha allah waaye lépp rek nañ ko defee ci respect ah, njëkk ak teraanga ah, en tout cas noonu lañ koy defee saa su ne samedi bu jot bisimilah door nañu émission bi ma tàmbali kook imaam Khalifa Ababacar Ndiaye imaam asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi eh, waaw ji bi ñu ngi lay nuyu. di la fay bu baax. ñu ngi lay delloo nuyoo comme ni ko olof tàmm waxee. <laughs> nuyu ñi ci plateau bi yëpp. dëgg la ku lim nag juum wala nga mm-hmm. fàtte. Mm-hmm. Eh, di nuyu tamit suñu gan gi di ko tatagal. Mm-hmm. ak les techniciens souvent dañ leen di fàtte rek. ji nuyoo fii nuyu diaspora bi nuyu Sénégal yëpp waaw. fàtte ñoom Ismaïla ak ñoom Tuuteeg. te ñoom ñooy tax ba lépp yem ñoom ñooy tax ba bi waa diaspora bi mën ci jot. loolu dëgg la jaadu tamit ñu nuyu leen yàlla. bàyyi leen ak seen saw mu ngi bàyyi leen seen saw di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp. jërëjëf en tout cas mbégte laa am saa su waxtu wi jotee rek di ànd ak yow su ma fi toogee ci émission bi ñuy wax géwal géwal nag ah, bu ci imaam toogee itam daf ci ànd ak euh, Moustapha Mbaye Moustapha asalaamaaleykum. aleykum salaam Djiby mooy am mbégte di la retrouver ci euh, Géwal. partagé donc da ñoo abandonné. déedéet jamais. <laughs> <laughs> bul may saa wala lu wax. léegi saa Djiby dafa choisir dimanche. waaye yàlla baax na ñu suñu jigéen mi ngi fi Zeyna Bamba moom tamit bu fi nekkee day assuré. man bii mooy sama émission. ah mais <laughs> dañoo tubaab ñee ñooy waa Jules yow bàyyee nga ñoo Zeyna Bamba. ñi ñooy bàyyi ñu dem ak ñooy wolofal yi. ñu bay bay bay ñu ànd ak. mais am rek waaw kontaan nañu bu baax. macha allah ñoo la gën a ci bi. a di ci ànd ak ñi nga xamante ne ñoom lañ koy seqal euh, samedi bu jot. Mhm. di leen jaajëfal di nuyu techniciens yi di nuyu ñëpp ñi nga xam te ñi ngi seetaan jamono ji. Mhm. ñi seetaan ah Idi maa ngi lay ziara Cheikh Cissé Vieux Badiane yéen ñëpp maa ngi leen di ziara bu baax a baax a baax jombul ci kanam tuuti dinaa leen lim ñëpp bu ko waxtu wi matee rek ah ñu fas yéene àndandoo yéen ci émission bi kenn xam ko seen xarit ah, di mustafa ah, mbay day ànd ànd ak ci émission bi borom euh, chronique yu neex yi donc noonu la koy defee ak suma suma suma xarit euh, Saa Wolof asalaamaaleykum. maa ngi lay fay di nuyu waaleykum salaam maa ngi lay fay di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoom laa seqal jotaay bi. waaw di nuyu ñi ñuy seetaan di ñaan borom bi mu yaatal suñuy dënn mhm. leeral suñuy xel fecc làmmiñ ba luñ fi wax rek mu amal njariñ askan wi amin waay mais saa li nga def tey ah fi nga génn man damaa ya man de damaa xam nga costume bi am na lu ëpp. Hmm. ay at yu bari ah. costume bi. Hmm. la ilaha illallah bi ma koy ñawlu yaakaar naa bu dul 2012 <laughs> di 2013. tey marron bees nga def de. waaye marron ndekete marron ñaawut. <laughs> maanaam Maron war na Maron war naa porter plainte Macky Sall. déedéet waay ëpp naa ni Maron demee woon ba soof ma. lii yàlla xam ne bu ma lay wan sama photo yi ma ci defoon li yàgg na de <laughs> c'est que dama temps yooyu nag daa gënoon a kii quoi tey laa ñëw rek ah. ma ne ma xaaral ma ah, tey moom moo tax tey génn gi fi ne ni boo xoolee sax dafa xaw a ah. nekkul près du corps trop trop baax na ndax temps yi damaa gën a <laughs> te temps bi ma tàmbali defaat sport damaa commencé yaram bi di demaat noonu quoi jaajëf saa mais ndekete daal maron daal xam naa daal wirgo wii moom couleur bi war naa porter plainte Macky Sall ak APR. nekk ñaawul ëpp daa ëpp daa dem mu ngi noonu ñi ko doon porter. marron bees laa laal nii. saa bàyyi tooñ ndekete marron bees ñaaw. ndekete rafet na jërëjëf saa wolof tooñ rek lay def ah xaritam a ngi noonu li mango asalaamaaleykum. waaw maaleykum salaam jibi euh, sacré ça. ça sacré ça kay. c'est vraiment ça. c'est vraiment mais dafa mel ni ba léegi xamul ni moom mooy nguuru quoi moom mu ngi opposé ba léegi donc euh, di la fay di fay ñi ma fi fekk imam imam playboy imam gentleman imam sportif. li nga lii nag moom mooy tooñ quoi. Euh, plateau géewal la xamante woon. mais dafa dem ba. dafa bokk samay xarit yi may sago. Ah, nit ñi dañuy toog man ak moom plateau ñu yaakaar ni. da ngeen xeex dañuy xeex. <laughs> wax dëgg yàlla mais loolu dañ nit ñi dañ ci war a jàngat lu bëri. Mm-hmm. Mm-hmm. politique du animosité. Mm-hmm. musuma bokk ak moom ay position day wax li ma gëm ma wax li ma gëm. dëgg la mais damay nekk ba Thiès. muy yëkkati téléphone am di ma woo di ma nemmeeku. man mii itam ma koy nemmeeku. kon vraiment. loolu yëpp géewal parce que c'est vrai que xawoon naa fi géej waa géjoon nga fi parce que géewal moom au lieu que mu yaatu waaw daa nekkoon benn say mm-hmm. di koy tëggee benn galan kenn di ci fecc <laughs> maanaam géewalu sonko la woon ak sonkole yi ak ñi ko faral animateur bi di di ko xalamal ñee di ko réetil ñii di ko tëggali bongo man daal maa doon ñëw géewal xaw a équilibré. Euh. kon fa tabaarakàllaa dellu si waat naa bu njëkk dañoo yaakaar ne ma nekkoon ci pouvoir yéen ngeen nekk ci opposition <laughs> léegi mbir mi beenu na def na wekku njugub comme ni ngeen ko tàmbee léegi yéen a nekk au pouvoir. non kii la war a lii mango ñëwati ba tabaarakàlla. jërëjëf lii mango gis nga man sax tuumaal na ma waaye baal naa ko jërëjëf ah suma yaaju baax ji soxna Touré donc euh, madame euh, Thioub depuis Espagne. maa ngi lay ziar bu baax a baax moom la téléphone am kiiwul mi ngi soññu naan micro bi de. waaw micro bi xam naa jombul micro. est-ce que du ci moom moom Siré Danso waaw xam naa la rek. Ah. mais lu ci mën di am daal suma technicien yu xarañ yi ñoom Ismaïla dinañ ko gérer incha allah alors nañu géewal nii lañ koy defee saa émission bi tàmbalee ah ñu ñu doore kook eh, ñaari minutes yoo xam ne ku ci nekk ci ku toog ci table bi rek da koy da koy jël yaa ko moomal sa bopp xool actualité bi nga jàpp ne moo la gën a marqué ci ayu bés bi nga commenté ko en deux minutes euh, su ko defee ma déclenché chrono bi nga xam ne kenn du ne ma ah yaa ma yaa ma tooñ wala maa la tooñ ma tàmbali kook Moustapha mbay Mbaye Moustapha bisimilah am nga ñaari ah simili yoo xam te ne pour commenter actualité boo jàpp ne moo la gën a marqué ci semaine bi top c'est parti waaw actualité bi ma gën a marqué ci semaine bi euh, bokk na ci li nga xamante ne mooy interpellation yi nga xamante ne interpellé nañ ko ñaari journalistes yooyu. Mhm. ak ñi euh, mu juree interprétation yu bëri yi nga xamante ne amoon na ci ëttu taskatu xibaar yi. Mhm. ñenn ñi jàpp ne dañ leen a war a jàppale euh, waruñu dañu war a suñu ay lu mhm. ñu def. ñeneen ñi jàpp ne déet. leen a war nekkat juum ngeen waaye doog leen a jàppale. donc mu wax wanaat ñu beneen xar kanam bu wane ne. am na lu bëri lu des suñu métier bi. Mhm. am na yu bëri lu ñu ci war a xoolaat am na yu bëri yu ñu ci war a jooyanti. Mhm. donc loolu marqué na mu baax a baax euh, xam naa bokk na ci ponk waxtaan yi mhm. waaye dafa fekk ne rek. Euh, dama bokk ci yaakaar ne daal war nañ ko mën a mën a mën a mën mën a joyantu bu baax a baax bu ñëw ci waxtaan dañ ci gën a ñëw incha allah. alors mu ngi noonu moom deux minutes la waroon def waaye may na ma yi ci des da nga maa may li des. waaw may naa li des jërëjëf merci beaucoup. Euh, noonu laa ko bëggee Saa Wolof joxal ma lien bi kii euh, Louis Mango ma dawre ko dem ci ki nga xam te ni moom mooy Imam Khalifa Ababacar. am nga fi deux minutes ngir commenter actualité bi nga jàpp ne moo la gën a marqué ci ay bés. waaw mooy actualité bi nga xamante ni depuis démb président wax na ci ou avant-hier Euh, le premier ministre ñëw dàbbali tey ñu amoon tiitaange trop ci ne xaj na les bo nit ñi dana am ak sàggan bu ñuy sàggan waaye yaakaar naa ni message bi jàll na mooy set gi ak sell gi jëme ci dëkkuwaay yeeg jëme ci gox bi jëme ci plus particulièrement réew mi mhm. loolu marqué na ma trop ak xew-xew yi ci biir yëpp ak ni ñu ko tërale ba ni ñu egsi fi ñu egsi buñ ci duggee ñu gën a détaillé incha allah. incha allah mu ngi noonu jërëjëf ah yow mit sa sa temps rek maa may li des ah ñëpp may nañ ma waaye xam naa ne saag luy moom duñ baaxee noonu saa aca bisimilah say ñaari simili. waaw man de fi Moustapha wax du ma sol sori waaye aay gu premier ministre aay ci communication. man bokk na ci li ma gën a marqué. Mm-hmm. ndaxte andi woon nañ débat bi installé ko ci mu war a nekk kenn ci way soobare yi maanaam armée. koo xam ne fi ñu ko teg gënalu ko mu naroon a jur coow loo xam ne mën na indi waaye bi première ministre génnee ba indiwaat débat bi waxaat dañu mujj gisaat li ñu jàppoon mooy entre presse ak pouvoir te loolu yaakaar naa moo moo gënoon xaw ma contre feu la ko defee xaw ma nu mu ko mën a defee waaye daal fexe na daal ba waxtaan wi fi mu nekkoon doon fa jub te foofu baaxul ci réew mi en boobaa du kenn moom def na de telle sorte que moom débat bi ñëwaat nekkaat ci seen diggante. Hmm. entre moom ak lenn ci presse bi. du ma ne sax presse bi maanaam lenn ci presse bi te boo gisee ni Moustapha waxaatee it sax it dafa amaat leneen lu mu ci amaat mooy lenn ci presse bi it ci yooyu ñuy def te nekk ci tappale yi seeni tappale commencé weeru loolu daal ci communication bëgg naa ko ci. parce que communication loolu la nit ki bëgg laa indi fi yow nga indiwaat débat bi fi mu war a nekk. kon mu ngi noonu jërëjëf mais tey sama gars yi man wala maa fi gëj ah jërëjëf ah ñoom ñëpp kenn jeexalul deux minutes may ma li des euh, Luy Mango bisimilah say deux minutes ngir waxtaanee loo xam ne moom nga jàpp ne moo la gën a marqué semaine bi. waaw samay deux minutes euh, en tant que xalpulaar bii xalpulaar. dafa am orchestre bu mag bu ñu tuddee daandeel leñol. daandeel leñol boo ko déggee mooy baatu askan wi ambassadeur de la culture pulaar. ñëpp xam ni Baaba Maal la woon fu muy déplacé wu c'est presque le Fouta qu'il déplacé mu am frère doomu ndeyam di Mansour Seck Mansour Diine Gawlo Baaba Maal ci bolo la wëy na sax wëy yoo xam ne waru ko wëy bu amuloon licence artistique bu Mansour Seck parce que Baaba Maal du ko war a wëy yeelaa Mansour Seck boobu mooy ki fi dëddu bu yàggul en tant que quelqu'un évoluant dans le milieu culturel mm-hmm. ma koy jaalee sama nijaay Baaba di ko jaale Fuuta yëpp di ko jaale bandiraaɓe halpulaare bi fof di ko jaale Sénégal loolu muy loo xam ni njaal la leneen li may dolli ci samay deux minutes dama am dëkkandoo boo xam ni c'est un voisin ñoo dëkk Thiès muy nit ku baax kooku noonu dama gis jamono ji image bu yéeme jóge ci moom di circuler mooy activité bi Ebon Touba bu yàggul waa jooju solu bañ koy jaawaleeg kenn ci àndandoo yi yonent bi salallaahu alayhi wa salaam di ko naan xam dafay niroog saaba boobu ñu doon wax Hamza kooku tudd Ibrahima Fall maanaam Ibrahima Fall boo ko waxee sa maam sa xel day dem ci maam Cheikh Ibra muy waaju baax di ku simple di ku modeste mais image mi ngi circuler ñun ñu ngi dëkk ak moom yëpp vraiment kontaan ci muy koo xam ni modèle la. par sa simplicité modèle la par trajectoire am ak fi mu jaar. jërëjëf li vraiment loolu mu góor naa ko wax ci deux jërëjëf merci beaucoup ah ce fut vraiment plaisir may toog euh, ngeen may jox seen i deux minutes jeexalu ma émission bi mais damay soog tàmbali moo tax yéen ñu may suivre ñëpp maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ah du côté des États-Unis comme Espagne Italie fépp fooy mën di nekk rek maa ngi lay wax cant ak ngërëm ñeel na leen ñi nekk ci réew mi tamit maa ngi leen di jaajëfal ah soxna Touré madame Thioub jërëjëf merci beaucoup ah su ma yaaju baax jooju alors. Euh, noonu laa koy tàmbalee ah ci waxtaan bi ndax ponk bu njëkk bi. li gën a fës tey jii ci actualité la ñu koy lañu koy ubbee moo di ne tey jii nekk 1 join donc euh, le gouvernement bi nekk jamono ji ci ci réew bu Sénégal donc woote euh, bésub set setal alors déjà euh, Moustapha mbay ci yow laa koy tàmbalee ah naka ngay mën a jàngatee wala évaluer ko lii di initiative bi nga xamante ne ni le président Bassirou Diomaye Faye jël na ko lancé journée. bu ñuy woowee journée nationale de ma waaw damay rafetlu initiative bi parce que dama bokk si ñu jàpp ne euh, set fu mu amul euh, wér mënu faa am. Mhm. set fu mu amul tamit jaamu yàlla mënu faa am parce que balaa ngaa jaamu yàlla foog nga set. Mhm. moo tax initiative bi dama koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax. Mhm. am yaakaar ne tey jii euh, doon na loo xam ne warul gëj ci dëkk bi parce que fu ñu fu ay nit nekk fu ñu bokk dëkk dafay salte dina am ay tilim dina am yoo kii mais di set di setal. loolu warul di ci penc mi moo tax initiative la boo xamante ne ñëpp ko war a rafetlu ñëpp ko war a wu mhm. def ko seen yëfu bopp parce que Sénégal bu setee gan bu fi ñëw dafa naan Sénégal moo set mhm. bu saltee tamit gan bu fi dugg danaan Sénégal dafa salte mhm. maintenant li ma ciy njëkk comprendre ci axe bu jiitu bi mooy ñoom ñi jiitu xam nañ ne ndaw ñu jox nañ leen bopp te boo nee investissement humain boo nee activité citoyenne dafay wane ne foog soxla nga ay bras soxla nga ay ndaw ñu ànd ak yow sa jumukaay. Mhm. tey jii xam nañ ne ndaw ñu jox nañ leen bopp bu ñu leen woowee ci loo xamante ne amal na solo askan wi dafay baax. Mhm. bu ñu leen si wuysee ñëpp koy gis mooy mooy li am tey ji doore woon nañ ko ci vacances agricole patriotiques yi. ñu gis la mu juróon ndaw ñi jox leen si loxo bii paa ñu ne set setal ndaw ñi ñëwaat nañu continuer nañu continuer di utiliser ndaw ñooñu nga xamante ne dañ leen a jox bopp pour intérêt dëkk bi su ko defee réew mi daal di am li nga xamante ne moom lañ koy xaaree. mais Moustapha dogguma la déjà am na initiative boo xamante ni président bi fi jugee woon moo ko doon def mooy cleaning day je sais pas cleaning day tey jii bi set setal bi lan mooy def différence bi. waaw ci forme bi benn la ay kilifa ñoo ko woote bëgg setal dëkk ku nekk na nga def sa gox. mais ci biir fond bi am na ay particularités. parce que bële lañ doon gis li ci gënoon a bëri bañ ko woowee daanaka mbirum parti la woon. da nga doon gis waa COJER jaar fii cadre euh, yi jaar fële ñëre jaar fële mais ñi au moins déggoo benn ñoom la instance su Pastef fi moo woote fii kii moo woote fële li ngay gis mooy ay ministre ngay gis fii ay autorité ngay gis fii ñuy woote ak seen i gox seen ko ñëw maintenant li ma si li ma si li ma si ñaawlu rek ak li ma ci d'accord mooy dafa am ay responsable yoo xamante ne pour man waroon nañ ci dugal seen loxo. Hmm. tey jii mënoo ñëw dakaar ñu ne dañuy set setal te mairie bu dakaar gisoo ko benn ci ci fenn fu mu taxawee bokk ci set setal bi ça pose problème mhm. parce que pour man bu Sénégal setee ñëpp la setal bu Sénégal tilimee ñëpp la tilimal mhm. du affaire u APR du affaire taxaw du affaire u Pastef du affaire u Sénégal la mhm. kon pour man tey jii képp koo xam ne Sénégal moo la ñor bi nga déggee mbir mi waroon nga xëy donte benn bale bu ndaw la nga xëy bale ko buntu kër c'est symbolique nga wane ne maa ngi contribuer ci li nga xamante ne moom la président bi def mais am na ñoo xam ne tey ji yaakaaroon nañ ne bu ñu yëkkatee benn peel teg ko sax ñu ne mu ngay jàppale président war a mi ngi dem mhm. or bu Sénégal setee setalu président Bassirou mhm. moo tax ma jàpp ne ba léegi Sénégal pour ñu développer du yomb parce dafa am ñoom dañuy jàpp ne li ñële di tirer pour Sénégal jëm ci kanam am ñoom saa bu ñu xëy ñu ngi tirer vers le bas mhm. loolu parce que ñoom fi ñu toll nii saa bu ñu xëyee ñi ngi ñaan yàlla ñuy échoué mhm. or échec ñi mais échec Sénégal gi yëpp la mhm. moo tax ma ne lii benn exemple rek bu doon wane ne ñenn ñi patriotisme bi ñu woote amuñu ko gëmuñu ko nekkul si ñoom parce que pour man boo gëmee sa réew ñu woolalu ci lu mel ni set setal ak yu ni mel ak yooyu noonu waroo xaar ñu naan président bee ko woote këlee ko woote kële na doon affaire koñ na doon affaire association ñëpp xëy génn def nànk ñu ñu ñu ñu bale affaire yi set lépp normal mais suñ ko jëlee bëgg ko faxas jëmale ko ci benn wet rek du sotti. d'accord alors Imam Khalifa Ababacar Ndiaye tam euh, naka ngay defee évaluation globale initiative yi nga xam te ne nii mooy le président actuel di Bassirou Diomaye Faye daal di jël euh, mooy lan lancer journée.